mbooloo bu takku moo daal di ñëw jullee fii nga xamante ne ni moom mooy Masaalikul Jinaan tey ci bésub tabaski bi lay ñu ci bari daal di ànd ak seeni njaboot bim jëlee kàddu gi ci xutbaam imaam Serigne Moustapha Mbacke dellusi na bu baax a baax ci li nga xamante ne nii moom mooy kersa. ku ne sax war ngaa fexe ba am kersa ci sa bopp ne nu may amee kersa moom maanaam mooy fexe ba fegu lu bari du ko nangoo def ngir bañ ku yàq sama der ngëneel yi ma dégg yépp ak dëggu lu may wax ci yow mu doon dëgg ci man ngëneel yi ma dégg it téere yi di ko wax ak borom xam yi di ko wax ma ciy jiim lu ma man ngir kersawu sama digganteeg sa sama bakkan sama bopp. ca noonu ay leader politik ñëwoon ñoom it julli fii nga xamante ne ni moom mooy Masaalikul Jinaan ku ci mel ni Bougane Gueye Dany ak Pape Djibril Fall buñ jëlee kàddu gi nag daldi nañ dellusi ci bu baax a baax ci actualité bi nga xamante ni moo ñeel. lépp lu jëm ci dette fiscale entreprise de presse yi la. xam nga yoon moom yoon la rek yoon moom euh, yoon la kenn ku ci nekk euh, li nga xamante ni moom nga warloo ak yoon nanga ko def ba mu mat sëkk. li li askanu Sénégal daj ngir ñu agsi au pouvoir mësuñu koo daj ci nit pour mu agsi au pouvoir kon ñoom lu ñu def doyut. li am solo mooy ñun ci dëkk bi lañ dëkk dañoo jariñ réew mi. Mm-hmm. dañoo liggéey ci réew mi. Mm-hmm. duñu naata xuuna du duñu duñu al topp dañoo liggéey ba mel ni ñu mel ci réew mi. bu ñu sukkandikoo ba tey ci mbàkk yu fay moom mii doon représentant wu xalif général des Mourides fii ci dakaar moom nag mu ngi gën a ñaax ñii di autorités yi ngir rek ñu gën a collaborer ak askan wi. la collaboration avec le gouvernement nit ñi bëgg nañ ko mais dafa am foo xam ne fii rek dafay sooxe fa muy sooxe mooy dañuy jël des groupement socio professionnel ñi ñu tuddee leen le patronat. patronat yi ay eh, kii yu bari lañu. or boo demee Touba wala nga dem ci sama mbokk bawol bawol yi wala mbokk kajoor kajoor yi am na ñoo xam ne tey jii boo leen ne génne leen nangami milliards ñu dem ci vallée bi ñu daggal leen ay tool ngeen bay ko ñu bay ko ñooñu da ngeen di élargir wax ak ñoom. imaam Serigne Moustapha Mbacke moom nag ci xutbaam ba tey daal di na ñaax bu baax a baax doomi aadama yi ngir rek ñuy muñ di jéggale.